boo gisee nag ñu def lii parce que dafa nekk li nga xamante ne tey adduna moo ko woote mu ñëw Sénégal jàngoro bi dugg fi suñu président monsieur le président son excellence maître Macky Sall woote ko muy lan nañu woote set jël ay suñu ay précaution ñu ñu jël initiative tey jii def confinement auto confinement sax laa ko mun tuddee parce que ñu ñoo toog suñu ko ñu waxtaan dugg si kër yi wax ak parents yi mais ñun kat bu ñu sañoon xale yi dootuñu génn si mbedd yi dañ toog seen kër parents yi dàqoo ci loolu ñoom mag yi

jël ay loolu daal lañu la ñu def loolu ñu ngi koy tàmbale depuis lundi tout simplement pour parce que dafa nekk feebar bi doon na li nga xamante ne tey ji ennemi boo xam ne c'est invisible la te ennemi bi maanaam lu ko mën a rendre lu ko mën a rendre vulnérable rek may set te lii nii buñ ko defee parce que dañu jàpp ni waruñu xaar nekk na li nga xamante ne tey ji ñun ñoo war a mën a jug balaa kenn duñ siy fekk si lu jug ñun suñu waa koñ ñu jël ay matukaay yu doy jug taxawal leen dugg sensibiliser leen waxtaan ak ñep wala ñu xaar kenn do gisee li ni sax tay initiative bi def nañ ko suñu koñ amna na ñeneen ñu nekk Grand cas yo xam aussi jug nañ dikoy def buñ koy def nak wax dëgg yàlla ba léegi gisaguñu ben autorité bo xamante autorité administrative bo xam ne ñëw na jàpp si lii on a dañ ci départ ak suñu propre moyen comme lu ma ko sax on est une association dañ def ay cotisation membres yépp ku nekk génnee kii 2000 kii 5000 kii 10000 000 kii 20 lu way am rek joxé dañ jënd ay quelques matériel pour mun démarrer

lu ñu autorité mën a jàpp ak ay mouchoir surtout ah lépp li nga xam ne autorité war nañu si mën a jàpp en terme de matériel rek ñun soxla nañ ko ñu ngi leen ciy xaar